sëriñ mun Mountakha Mbacké xalifa général des mourides di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool ba naal yi yéenee liggéeyal Cheikhul Khadim suñu borom may ko kàttan ak wér ba mu àggal ko di siyaare suñ jàmbaar ju baax ja Serigne Dame Lo Ngabou suñu yaakaar tey ak ëllëg di ko ñaanal suñu borom mu xaaral ko àjjana firdawsi ya taas ci barkeem dool ko ay leeram di siyaare suñu xale mi nga xam ne moom mooy suñu wasila di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te ànd ak moom di siyaare bis bi nga xam ne mooy Serigne Cheikhouna Lo moom tam di suñu Serigne di doom ci Serigne Dame Lo du ko ñaanal moom tam suñu borom yàggal ko lool ba li mu yéene liggéeyal Serigne Dame Lo suñu borom may ko kàttan ak wër ba liggéey ko ci jàmm salaam waa alxuraan ji nag taxawaay biñ ci am mooy suñ sëriñ ba sëriñ Dame Lo Ngab moom moo ñu ko daan daan daan digal bis bi saa bu ñëwatee ñu daal koy taxawee taxaw taxaw bu gën a rafet ci anam yi taxaw njàng alxuraan mi waaw ci mat na ci jàng lu mat fukki kaamil waaw ci luñ man nañ ko ci jàng waaw moom moo daan wax saa bu bis bi ñëwatee suñu xëyee nañ jiital njàng alxuraan ndax ku nekk xam na ne alxuraan mooy lépp waaw moo tax bu ñu xëyee ba léegi boobu ba léegi ñu ngi ci di ci def liñ man di ñaan nag lépp liñ fi jàng yàlla na ko suñu borom nangu def ko ay ngëneel yu bari tasaare ko ci mboolem taalibe Cheikh Khadim yi wa bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin di dellu di sant yàlla rek di sant cheikhul xadim mi nu boole ci njabootuk cheikh ibrahima loo ngaabu ñun ñii di yëkkati sunu kàddu jëme ci mbir mi ñu tudd sëñ abduloo sëriñ daam loo ibnu cheikh loo ngaabu bis nag sant la kan la ñuy sant sunu maam ku jar sant muy Cheikh Ibrahima waaye sëriñ bi sunu jur sëriñ Daam Lo yàlla yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem ci barke Cheikhul Khadim dinu ko fayal dinu ko fayal ba bisib jamal xiyaam ba mu continuer dinu ko fayal ndax ñun ñi ñëpp kenn ku nekk def na ci yow loo xam ne nii boo góorgóorloo rek demal sa bopp ba tax na bu nu wëlbatikoo di sant sunu maam Cheikh Ibrahima cant gi nag mu joxoon ko ndigal ci Serigne Cheikhouna Lo sunu rakk sunu xarit sunu féete moom nit mu nekk ku baax ku woyof ku nangu dogalub yàlla wax ci moom sax dana ma të ndax jege gu ko jege lool ak féete gu féetewu ak moom kon ba tax na dañuy wax rek ci bis bi ni kin koy sant mat na ko sëkk ndax ku am ngërëmal Serigne Touba la muy Cheikh Ibrahima Lo ku bindal Serigne Touba fanweeri kaamil ak ñett Serigne Touba wax ko ni Ibrahima ku dégg sax Allahu akbar texe na kooku am nga garaat bu rëy ci Serigne Touba ba tax na garaat yi bari na lool ba mënuñoo wax yépp xanaa di wax ni daal. sant nañ yàlla bu wér bim ñu mayee xel ak doole ak kàttan ban di sant sunu maam ndax jëmm la woon joo xam ne nii ku wëlbatiku ngërëm li mu am ci sëñ Tuubaa ku wëlbatiku di ko sant yaakaar naa di nga dajeek ngërëm loola te rafet nañ ci njort di ci sant sëñ naa it di sant sunu way jur wa sëñ Daamloo ñu ko teg ci loxob Serigne Cheikhouna Lo mu ànd kook ñun ñëpp nag euh, di sant yàlla bu baax it euh, di wax ne danoo mbégtam xool daal moo xam ne nii euh, mënee su ko tudd ci làmmin xanaa di firneel sunu mbégte rek ci bis bi di ñaan sunu borom di ko yokk at mu nekk defal ñu ci tawféex ak taysiir ban dajee cee ngërëmal Cheikhul Xadim ak ngërëmal Cheikh Ibrahima sunu maam te rafet nañ ci njort bu baax. kon nag xam naa dañ koy tënk rek euh, ndax wax ci jëmm yooyu dafa jafe waaye comme bisu sant la ñu ànd ceeg yéen bi sant rek di wax yàlla nañu ci dajeeg ngërëmal Cheikhul Khadim ci bàkki Cheikhul Khadim jëf kontaan nañ ci laaj bi euh, di sant bu baax nag di doolee sant bu baax rekk ma ne ko di sant bu baax di doolee sant bu baax rek di kontaan ci fekk gi ngeen ñu fekk fii ci waañ wi waañu sëriñ seexu naa loo moom sëriñ daam loo moom sëñ Ibra loo moom maam daam xuj jëbu gaydel bokk fu baax di jëf jëfin wu baax di def la maamam ya daan def teg tànkam fa maamam ya tegoon seen tànk ak fa baayam ya tegoon seen tànk fa la ko teg te it damay wax ne bu baayam dellusiwaatoon jamono lu defaraat ab toogaayam mook ay magam ak i rakkam ndax ci li neex yàlla rek ci la nekk neex yonent bi neex Serigne Touba euh, bis bii nag day bis boo xam ne moo ko tànnal boppam sëriñ bi fekk ko ci waajuram wa fekk ko ci ndax Sëñ Ibra maamam moom lay sant te it loolu sët bu koy defal maamam rek ku ñu war a jàppale nga man nag muy sama rak daanaka booy boo ma ne ñu bokk baay ndax fii ma nekk ci kër gi ma nekk yàlla boole maag borom kër boobu baayam mii di waajuram sëriñ daam loo mi nelaw bu yàggut moo ma fa yóbbu woon ma nekk fa di seen mag ñoom ñëpp subis bi ñëwee nag mu ñëw jox ñu ko teg ko ci suñu loxo dinañ fi jàng alxuraan dinañ fi togg ay bernde dinañ fi jàng day sëñ Bàmba yi dinañ nekk ci waañ wi liggéeyal liggéeyal yàlla liggéeyal yonent bi liggéeyal sëriñ Touba daal togg yi gis nga macha allah taal nañ juróom benn mbana reer bi tamit noonu lay demee dara du fi manqué ginaar yaa ngi nii togg yi gis nga daayira yaa ngi nii ñoo yore liggéey bi ñu di ko liggéey nag yàgg koo liggéey ay ati ati at yàlla nañ ko yàgg a fekke yéen ngeen yàgg ñu ko fee fekk ñu di ko teewe at mu ne ci barke sëñ taxa di ko ñaanal nag moom sëriñ Muntaxa mu yàgg fi lool te ndax ñoom ñii seen waajur dafa doonoon nag moom wëllëre bokkoon nag moom daara bi nii tuut tànk kon bu bis bu mel nii amee war na noo ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi loolu te wér ndax kenn umpale wut ne sëñ Muntaxa moom ku bëgg sëñ Bàmba rek la def kuy bëgg sëñ Bàmba rek sëñ Muntaxa ngay dimbale kon nag yàlla na ko fi yàlla bàyyil yàgg fee nekk ak moom yàgg teewe bis bii yéen ngeen yàgg fee ñëw yàlla suñu borom boole leen ci milliardaires yi sëñ Muntaxa yi barke Seexu Xaadim bismillaahi rahmaani rahiim ñi ngi sant bu baax yàlla ak yonent bi di sant sëriñ Touba bi nga xamante ni moo tax ñu teew fii tey ngir jàpp ci sant gi xamante ni dañ koy fa Cheikh Ibrahima Lo di ci ñaanale waale suñu sang bu tedd ba Serigne Dame Lo euh, daayira bi nag mooy daayira Xidmatu Xadim fédération Touba Ngaabu dakk fii ci Daaru Lo waaye boole ay daayira yu bëri yoo xamante ni ñu ngi teew ngir jàpp ci liggéey bi xamante ni maanaam dañ fee nekk di taxaw waañ waañu ak lépp bépp berne boo xam ne daal dañ koo war a jëfandikoo waa daayira bi ñoo ko war a taxaw daayira bi nag di daayira boo xamante ni seen liggéey mooy lii la euh, mooy xidmatul xadim dañuy liggéey Sëriñ Tuubaa te liggéey Sëriñ Tuubaa boobu yemalu yemaluñ ko ci lii rek dañuy xool fépp barab boo xamante ni dañ fay yëngoo ci sëñ ba buñ ci amee ndigal teew ca jàpp ca liggéey ba ngir jëmi sëñ bi rek loola moom la ñuy dox waxtu wu ne waaye nag di jëm yoo xamante ni moom Eh, képp ku ñuy àndal ci liggéey si bi rek dañ koy def ngir jëmmi sëriñ Tuubaa mi nga xamante ni moo tax ñu koy def moo taxoon ñu teewoon ci barab bi ci ndigalu eh, sëriñ bi waaye nag tënku ci fédération Ngaabu Xidmatu Xadim yallaahu ya ahadu innaka samad ya rafia samaayi min gayri amad salli bi haqi qul wallaahu ahad على وسيلة نبيك الأهد سيدنا محمد والآل وسامي في العال والمال وابلو يا ربي من يوم الأحد على بشارات لدى كل أحد وجعل كتابتي مسايا خوتا لو وزينا يظهر ياقوتا يا ربنا صل صلاة بالسلام هل الذي مع العناء والملام وغادني إليك يا ربي بك وغدني بك لو بحبك سيدنا محمد والآل وزابي في العال والمآل قام له يا ربي في الاثنين فوق المنى والعاج من منين بغير عمل وغير قدر يا من كفاني كدارة الخدر يا ربنا صل صلاة ضارئة كل المفاسد تصول الطارئة إلى سوانا قبل أن تنتهي يا من لديه درريقا وإياه مع سلام همري يسلم صلاة مرة كرمو يا وفى لغير الله قبل في الدرية بيا لبادر مصود كالدريم نفى لغير الله من دكاره كل أصلي جرى المكاره على من يرمان في سفينة بأنني خديم سلمدنا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 ni ñu ko laajee rek dañ la koy tondoo ci noonu ah di ñaanal Serigne Cheikhouna Lo mu yàgg fi loolu te wér comme nag niñ koy defee mooy ah kafe gi moom ñun yàlla dafa dogal ñu dëkk fii ci yàlla dogal di ànd ak soxna Kumba suun ñëng fépp fu ñuy yëngoo rek dañ fay daal di yëngu ci kafe gi maag sama jëwriñ soxna sëñ Abib mii nga xamante ni moo nekk sama sama ndeyjoor waaw noonu daal yëngoo ci kafe gi rek saa su ne. fu ñu demit euh, noonu lañ fi daal di nekkee soobu yàlla waaw ginnaaw bi nga xamee nag euh, liggéey bi jub si na ñu jël liggéey bi teg ko suñ loxo ñu ngi nii di ko commencé daanaka suba ak léegi nag segg na ñaari mbana yoo xamante ni ah murid yi barkeelu nañ ko ba tey ba tamit noonu lañ koy jàppoo fii ba ngoon incha allah di sant bu baax a baax rek. salli bi taslimin ala ayni nahim wa sayyidil kawnayni baasitan naxiim salli bi tasliimin ala ayni naxiim wa sayyidil kawnayni baasitan naxiim salli wa sallim yaa muniil albirri ala alladi samayta ayna algurri wa ali wa sahbi wa bilburur juduli bila adawatin wala gurur salli wa salliman yaa ilahi ala nabiyillahi salilahi wal ali wa sahbi bila tanahi yaa man xamaaniya anil manaahi yaa man lawul amru ka mislil xalqi salli alal muxtaari saadil xalqi tawfiiqu aadin xaadoo lilhaamu xaddab dayaali maa lawna bihaamu baddal liyal yawma bi rabbil xuyabu أفاسني ممن خلوا وخيب لا يتوجى للناوي مريب عني مع المكاري والتعب سعادتي بخير ما كتب وكوني العبد الخديم قد سبل شكر لي ميسر العسير ما اختاره لي بلا مزير أتاني المرجب في دار المنن عند تسن تدخلني دار المنن هب لي سفينة بكل الجنة من دارة المنن يا ذا المنن الله من كل كريم أكرم من أمه خادا له تكرم أسلم له كل كان إيماني والعظيم الإنسان للرحمن واعجب بسكر بلا كفران تكفى حسابه من نيراني وقلبك على سادات الأموات تبير